champion <laughs> maa lay ziar di la bëgg. Eh, namu naa la lu mon ami mon frère. maa la doon bàyyi ci sant yàlla bu baax di lu ci rant bi. delloo ziar na sant yàlla bu baax lu bees. sant wér a wér alhamdulilah. yaa ngi def yaa ngi def liggéey bu rafet yaa ngi def liggéey bu mucc ayib. jaajëf jaajëf. yal na na la yàlla fay. amin incha allah. yal na yàlla yokk sa xéwal yal na yàlla barkeel sa liggéey. ah amin ñu bokk lépp incha allah rabbi mais mon frère li ngay def rafet na rafetlu nañ ko lol jaajëf jaajëf. yaa gi sulli yu suul woon yaa ngi koy sulli. waaw waaw ñu ngi kër kër. mais rafet na rafet na. jaajëf bëgg naa la. Bazooka dinañ waxtaan ci ci lu gàtt mais dama bëgg ñu waxtaan ci ay. Uh-huh. sa ay quelques uh-huh. combats. sa uh-huh. ay quelques combats sa combat guy gi. sa combat Tapha Tine. sa combat sa combat ak Bruce Lee ak sa combat ak ak ak kii Baye Mandione. yooyu combat bi dinañ ci. mais fi ñu commencé mooy sa diggante ak ak kii Luc Nicolaï. Uh-huh. Mbour nga dëkk Mbour la dëkk yan relation ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen am dañ lay bàyyi nag nga nuyu ñu lay suivre instant bi ba pare ñu dem ci waxtaan waaw Lamine uh, ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di wax a'uuzu billahi mina seytaani rajim mm-hmm. di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi tey ñaan luñ fi waxtaan rek yàlla na nekk jariñ waaw yal na nekk njariñ di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñooy seetaan sa émission bi à travers Instagram bi. Mhm. et puis euh, di la confirmer que ni li ngeen di def rafet na. job trop yaa ngi tax gars yi di namantiku. di mhm. xoolante vraiment c'est c'est formidable quoi. Mhm. kontaan nañ ci trop. kontaan nañ ci trop et puis euh, voilà quoi. ok am na solo. Ah. ci léegi ci léegi la ñuy commencé léegi ñu waaw Luc Nicolaï xam nga c'est ami ñoo dëkk ñoo dëkk buur mais yàlla daf ñu boole mu nekk suma nit mën naa ne mën naa ne Luc du suñu relation du woon làmb kese quoi dafa am yeneen yoo xamante ni nii man ak moom dañ ci doon ànd muy wàllu liggéey ak lépp ci business daan def yëpp dafa am foo xamante ni dañ fa doon ànd mu nekk nit koo xamante ni nit ku baax la nit ku yàlla baaxal waaw donc euh, mu nekkoon nag suma xarit di ma conseillé di ma mhm. encouragé yu bëri di ma encouragé yu bëree bare bare bëri mhm. dañ daa dëgg làmb ba saison bi jeex man ak moom ñu ànd dem soit dañuy dem ci campement yi ci àll bi nappi mbaa ñu dem rëbbi vraiment amoon nañ relation yu proche donc su ma expliqué yooyu sax mën naa am ñu ne ah mais kii mais non non non non en tant que lui dama ni la même famille dama leen di jot ba tey nii daw moom yëpp mm-hmm. dama ak relation quoi mm-hmm. donc mu nit ku mu nekk nit ku baax ñu ngi koy ñaanal nag li nga mm-hmm. xamante nii mooy ndok la yàlla teg ko ko yàlla na ko buur yàlla yenni yàlla na ko ko buur yàlla wàcce dolli ko xewal parce que parce que gentleman a ngi noonu nag gentleman la xam nga nit nag moom nit matul yàlla moo ñu bind ci matadi dëgg la yàlla ci boppam moo ñu bind ci matadi bu fekkoon mat nañ am na yoo xamante ni daanaka duñ ko soxla. mais mhm. nitu noonu gentleman nit ku gëm boppam. nit ku mhm. gëm challenge. nit mhm. homme de défi mu ngi noonu gaañ boobu. nañ ko ñaanal yàlla yàlla teggi nattu bi. yàlla teggil ko ko ba mu continuer donc vraiment ñu ngi ak suñu xol ak moom daal. parce que vraiment te te ku bokk ci ñun la. en dor de làmb même làmb tey jii bon damay wax en tant que làmb parce que munu munu ma ni damay wax en dehors de làmb tey jii lamb ah. làmb soxla na ku mel ni Luc Nicolaï dëgg la parce que jamono bi ni mu mel nii làmb ji doxatul na mu war a doxee te gaan boobul comme li ma la wax léegi rek mm-hmm. nit la bu gëm boppam homme de défi mu ngi noonu mm-hmm. bëgg def lu ñëpp naan waaw mm-hmm. bëgg na lu def rek ñëpp tourné ni waaw kenn mësul gis lii ku rafet xol ku yéenewul kenn lu ñaaw mooy jantal meneen mm. billaahi wal yal na ko yàlla dolli sutura di li nga xamante ni bur yàlla rek moo ko ko teg mm. yal na ko ko yàlla ci barke alxuraan donc su ma waxee loolu nag miin na lu bëri koi parce que nit moom ñun ñii ñëpp ñooyam kenn ku su nekk mun nga juum mm. kenn ku su nekk mun nga juum mun nga am nattu te yàlla mooy tega nattu yal na ko ko bur yàlla teg ci barke alxuraan amin amin amin amin lan nga ñu mën a fàttali ci relation yi ngeen am comme ni ga ko waxee ànd ngeen dem rëb bi kon loolu lu yàgg la. mais mais li li li ma lay wax nii lu yàgg boobu bëreegu ma. lig moo ma njëkk jox cinq cent mille franc CFA. Ah. lig moo ma njëkk a jox cinq cent mille franc CFA mhm. loolu je rappelle bie yu xonk yàlla woon. bi mu ko konte jox ma ko yónni ma ci benn banque bu nekk Mbour ni ma demal nga déposé ko. Mhm. xaalis bi bi ma ko joxee tellement que dafa bari ci man ba nga xam ne xaalis bi dama dama ko dugal ci mbuus dugal ko sans poche jël suma loxo teg ci. <laughs> est-ce que di dox bi ma demee barke alxuraan laa lay wax nii de li ma lay wax. rawal rawal day dombay tànk soxlawu ba ko ci. rawal rawal rawal. bi ñu demee ba ma déposé monine bi. Mm-hmm. c'était la première fois bi ma demee aw ma onze audace dugg ci biir banque bi. Mm-hmm. <laughs> ma dugg ci banque bi déposé monine bi bi ma ko déposé. mu jox ma numéro compte bi nga xamante ni ci laa ko waroon def bi ma ko ci defee ba pare gars yi bind kay jox ma reçu dama insister ni ndax damay dem ci sawaay wala lii problème la. Mm-hmm. parce que xaalis bi lañ jël jox ma reçu. Mm-hmm. <laughs> nga xam ne nga xam ne loolu yàgg na. nga xam ne loolu yàgg na. Mm-hmm. et puis nit ku baax la ñun dañ doon ànd ci yu bari. dañ doon ànd comme li ma wax ci affaire kii ba daf doon dafay yoroon na benn 4x4 L200. luuma yi ci lañ daan dem. dañ dem ci lu pour wax la rek ñafekat bi mu nekk. dëgg la jamono mu ngi yor lank tuus. lank tuus am restaurant am lépp. Hmm. ñu fay jaay dibi dibi bu neex. xam nga hmm. li ma hmm. donc ñu mosaan bu bu mercredi mosaan a jot dañuy mercredi am na luuma yu bari ay mercredi jeudi ay lundi samedi dañ daan dem ay sànjara bu ñu àndee dem ci L200 bi muy jënd muy dugub. di jënd ay Mm. di di jënd yu bari. Gambie mm. ginnaaw yàlla man moo ma moo ma nandal sax affaire business ak yooyu ak naka la war mun a pour ñafe gëm boppam. Mm-hmm. bon ak yeneen yu baree bari fekke naa mu jënd ay ngooñ vraiment nit la boo xamante ne nii. billahi wal kitaab dafa liggéey. Mm-hmm. dafa liggéey te business bi ci la nekkoon man ma xam ci dara. Mm-hmm. loolu nekkul ni moom ma koy expliquer man personnellement. maa ko dund ak doon ànd ak moom. Mm. mu yor L200 may ànd ak moom di toog ci oto bi ñuy ànd di dem muy jënd ay xar ci naar yi mm. maanaam mm. naar yëpp xam naar yi demoon nañ ko ba bu ñëwee sax dañ naan tubaab bi tubaab bi déggul wolof xam nga ñuy dee affaire bi nekk ambiance boo xamante ni et puis mu nekk borom jom daal nekk ñafekat xam nga li bon c'est vrai que àdduna nag moom dara yu mel nii mënta ñàkk daal ndog nangu nañ ko yàlla moo ko teg yàlla na ko ko buur yàlla dindil ci barke alxuraanu karim amiin amiin et puis nag ñu ngi lancé message solennellement mm-hmm. président de la république mm-hmm. le gardien de la constitution mm-hmm. bon ak ñu koy ñaan yàlla fi sabilillahi affaire bi bu fekkente ni nii ndimbalu yàlla mën na ci daw nañ ko ci dawal parce que nag après la pluie c'est temps yàlla buur bi ñu sàkk day xiin ba mu ñuul mu taw taw bu métti bu pare ndox mi daw ci rigol yenn suuf si jël ko jant bi génn mu neex. waaw. waaw ñu ngi ñaan again yàlla def sutura ba gaa yi nga xamante ni nii ñoo ko tenc yàlla mm-hmm. seen xalaat ba ñu mën ko jégal fi sabilillahi quoi. Mm-hmm. parce que nag gaañ bi tamit bu ñu waxee lépp lépp gaañ bi dem fenn ah gaañ bi il est de Mbour. Mm-hmm. il est de boo ko soxla woon mun nga ko gis. mënatul réer ci àdduna. non fu muy réer lig fu muy mais lig il a une ah, au Sénégal. lig mhm. lig demul fenn lig tukkeem yëpp ay tukki weekend lay doon mhm. même bu mësaan a dëkk bi ay weekend lay génn dem ñëwaat ok am na solo mais làmb tamit làmb ah. làmb ah? est-ce que njabootu làmb est-ce que mhm. instant bi amuñu hommage bi ko war a rendre est-ce que jot instant ñu ñu jéem fexe gis président mbër yi jiitu ci promoteur yi jiitu ci manager yi jiitu ci billaay non làmb lambu lambu lambu am na lu mu war a delloo Luc Nicolaï today tey tey tey tey tey lambu am na lu mu war a delloo bon c'est vrai que ñun bon ñun ñëpp ay julli lañ ñëpp ay nit ñu baax lañ ñun ñëpp ñoo gëm yoon ñoo gëm justice ak yooyu mais après loolu dafa am nit ku nekk mhm. tolloo ci mbir ña ko war a mën a taxaw rek ñoo ko mën a taxaw mooy acteurs yi nga xamante ni ñoom la seqaloon mhm. te Luc yaakaar naa ni def na ci làmb loo xamante ne nii ji jii billaahi jaroon na bon c'est vrai nag la plupart des gens dañ naan ah yoon yoon la yoon yoon la ok yoon yoon la mais yàlla suñu borom mais président moo ñu digal yoon waaw ah te président de xëy xëy gracier ay nit pourtant yoon moo leen teg ay daan mais moom maanaam maanaam maanaam pouvoir may na ko mu xëy ah. bàyyi ay nit billaahi moom loolu tax ma tudd turam looloo tax looloo tax ma sute turam président Macky Sall loolu moo tax personnellement ma sute ko parce que yaakaar naa mu nekk ci bopp réew mi et lii xew nii lii xew nii umpul kenn président Macky Sall moo la xam ne làmb moo la gën a xam ne làmb ji facteur bu dox la woon mu dem ba mu yàgg mu xaw moo gën a xam xam na ko daf ci lancé ñëw le ministre Matar Ba moo nekk ndawam te gis nga moom mu ngi bay wàllam ci affaire yi Mm. mu ngi def man personnellement ñu daje mais franchement li may gis. ak mm. li muy def xam naa ni nit ku bëgg njabaar la quoi mooy Matar Ba mm. vraiment. mu ngi def kattalaay kattanam ci làmb. bon xam nga président de la république moom mooy moom moo ñu jiite. mais lii làmb lii doxal làmb c'est vrai que am na ci part. mais lii doxal làmb mooy acteurs yi nga xamante ni ñooy teer ñoo nekk ci terrain bi comme Luc Nicolas. Mm-hmm. comme keneen comme ñoom garçon mbeg à moment à au comme mhm. Aziz Ndiaye yeneen promoteurs yi sëñ Modou parce que ñooñu man kenn ku si nekk bon peut-être Aziz Ndiaye musuma tëggal mais Aziz Ndiaye musuma tëggal mais Gaston Serigne Modou Niang gaa yooyu yëpp kenn ku si nekk mhm. am naa rela am naa la mhm. daanañ jëflan ci làmb ak yooyu yëpp donc ñu mel noonu ñoom ñooy acteurs yi ñoom ñooy ñoo ñoom ñooy concerné ñoom ñoom ñoo nekkoon ci làmb di ci di ci investir seen affaire bon c'est nag àdduna moom kenn du man bon liggéey bi may def maa ngi ciy gagné à cent pour cent loolu moom loolu loolu moom yàlla may ko kenn. Mhm. mais nag lamb sutura la même ñun ñi même ñun ñi ñun gagné wuñu ci lamb ay millions yu ñuy woli ak yooyu. mais mhm. lamb ñun biñ ci nekkee ba léegi ñu ngi tedd. Mhm. grand man jamais man la lamb gagné naa ci ay cent millions wala cinquante million ci par combat mais dama ni la tedd naa ci lamb. Ah lamb am na lu ma jox. lamb am na lu ma te tey jii man luy doxal lamb. mais du ma ko daaneel c'est vrai que bon maa ngi ci affaire maa ngi ci ay yeneen business ak nangam nangam mm-hmm. mais je suis toujours adoré la lutte sénégalaise billaay te du ma ko sa xarab dëgg daal ñu ngi ñaan yàlla di ñaan président de la république again monsieur mm. Macky Sall ñu ngi koy ñaan fi sabilillahi Luc Nicolaï gaan bi c'est vrai que yoon moo ko daanak ak yooyu yëpp mais dama ni la gaan bi on a besoin de lui mm-hmm. on a besoin de lui nañ ko jàppale génnewaat ko mu libre mën a continuer projet yi. parce que tamit am mm-hmm. na comme ni ko gars yi wax rek man bon am comme ni ko gars yi wax rek tey jii booy Ama Baldé Modou Lo ñi nga xamante ni ñoom lañ mujjee organise ñoom lañ mujjee tëgg mais ñoom ñoo ñoo ñoom ñëpp mm-hmm. ci ay retard fi mu toll nii guddi yu bët setagul xam nga dëgg la dëgg la moo tax vraiment daal mm-hmm. war na ñaanal gaan bi président de la république war na def geste geste en or bàyyi mm-hmm. gaan bi mu wàcc mais gaan boobu gentleman a ngi noonu billaahi wal kitaab bi ala ko ñor te am mu ngi Sénégal grand bi mm-hmm. amul mu am feneen grand bi lu mu investir Sénégal ay këram ñu ngi Sénégal mm-hmm. terre yi mu am mu ngi Sénégal boy kooku kooku tey kooku kooku facteur la il fait partie il fait partie bokk na ci nit ñi nga xamante ni nii dañuy liggéey ci développement wu réew billaahi boy peut-être am na ñoo xamante ni waroon nañ nekk ay ay yeneen façon nit mais c'est grâce à la lutte sénégalaise c'est grâce à à des promoteurs qui t'organisent ñu lay jox place di lay jox seen moonin te dafa loo leen dara dañ lay jox moonin ni la góorgóorlu peut-être beneen combat di nga xam nga ñu bari sama classe ki yëpp sama classe ki yëpp lam moo bon kon vraiment dañuy ñaanaat yàlla rek yal na ko hmm. yàlla teggil bu yal na ko yàlla teggil yomb na yàlla amin